mbaa yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm wér Badou Mbaye yow yaa bëre dimanche bi passé ak Papa Boy Djiné yàlla may la ndam ginnaaw bi nga bëre pare looy wax sa ay supporter ak sa ay mbokk waaw ginnaaw bi ma bëree mooy wax dama naan bisimilah ma sant yàlla nag baay di julli si yonent bi di sant samay ñaari wayju di sant sama yaay di sant sama yaay waaw waa Tëngéej moom vétuwaar bi di leen nañ ko mbégte quoi parce que nekkoon na combat boo xam ne nii du ma rek a ko soxla woon Tëngéej a ko soxla ngir xam nga combat dafa bëri woon coow quoi am wax am rigueur xam nga senegal yëpp di xaar combat bi wa Tëngéej djel ko kon Tëngéej dal, ñom loolu ferté wa Tëngéej la dal waaw loolu la. yow tay la mo la indi fi wa tey li indi fi gamu goy mo wara beure sama mag yu kunyaka ku ñàkk problème di ka ñaanal di ka ñaanal di ka ñaanal di ka ñaanal yalla nako yalla may ndam lu sedd xolom parce que mbeur la gëm na def mu ngi entraîner jom waaw di ka ñaanal yalla yalla nako yalla may ndam lu sedd guuy waaw ñun Tëngéej dañuy xéxal ñun Tëngéej mo ñu ñor ku nekk da ngay sa gox Nan ay parcel ni nan pigine ni nan fee ñun tëngeej lañ am Rio waxon naa ko ke Rio gaay xamuñu Rio de Rio ba ngi ñew si wuñu na papa da bi nga bëree hmm mais dañu dañu dañu fi nga jëm ñu xam ko fi quoi ñun ñu sel nag fi ci Rio TV wa fi ma jëm ingi samay grand yu bëri dañ taxaw ndelu na bo fi jëlaté sa combat morom fi do fi bëre parce que sa morom yi nga daan ñëp dañ bëri la ma ji mëno bëree say morom kase mais man sama morom boo fi bëri sa morom nañ lay xass boo fi demee di jël ay paa. dañ léegi ban mag ban mag ban mag sa xel. waaw li nekk sama kanam daal bëri na maa ngi déglu samay mag. Ah, mais waxal kenn. non mbëri koo fi wax baa mu nekk kii dama pare lee yow da ngay may sax gars yi baa leen nii nii kii nii rek waaw laajuma kenn xam nga waaw. Rio TV ku am loo xam ne na nga jaaxle wala lu la réer noo xalal demal TV Rio TV Rio TV lañu wax. déggoo ñu ne Rio Rio. Rio jeexal na wax Rio TV mooy Riol góor. barki Serigne Bamba te mooy gor mooy lampoor yi looy seet si média wala si dara demal Rio TV da nga koy gis te Rio la ñu